yàlla def ko mu doon président 2024 ci kàttanu yàlla bi xormati qulillahuma malikal mulki tu'til mulka man tachaahu Ousmane Sonko wa tanzi'ul mulka mimman tachaahu soxna Batoor wa tu'izzu man tachaahu Ousmane Sonko wa tuzillu man tachaahu soxna Batoor biyadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir Ousmane Sonko bi xormati bokk yi ñu leen di nuyu yéen ñëpp ñii fi teew ak ñi nga xam ne danañ gis suñ kàddu wala suñ jëmm bu tey weesoo nu xam le ne noo ngi fii ci Touba ay dongo ay dongo dongo daara dongo daara mooy doomu daara ay sëriñ daara nag ñii nii sama wet sama gannaaw ñenn ñi man nag doomu daara laa waaye duma sëriñ daara waaye lépp lu ma yëngutu daara bu ci jiituwut it moo cay topp kon ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp ci teew gi nga xam ne la moom la teew fii sabab bi yomb naa xam buñ gisee nu toog nii waaye nag daanaan gisee ci lu dul lii waaye loolu tey lii moom dëgg dëgg sabab bi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ay donga daara te ànd ak Ousmane Sonko ci li muy yëngutu ñenn ci ñoo toog nii muy ñun ñii li sabab bi toog gi nag wala nu waxtaanee fi ñu jëm mooy fan weesu woon rek ñun musunoo weer woote xuloo ndax jomb nañ ko ndax li nekk moom moo xuloo luwul waaye nag am na indépendance walla liberté ci réew mi comme ku nekk ni nga ci amee indépendance ci boo gisee loo xam ne jàpp nga ne lii dana jariñ nga jëme ci sa bopp wala nga jëme ci sa njaboot wala ki nga xam ne mooy sa xarit waxoon naa ko yaakaar naa benn interview ne àndoon na maa wàdd bàyyi wàdd jàpp ma jàpp Macky ma àndaat ak Macky bàyyi naa Macky maa ngi ci Sonko nee it ne Sonko jébbalu mu ci moom waaye li ma gis ci moom dafa maa doy saa boo xamee ne gis naa demoon naa maari déem si te yaakaar naa loolu du am bu doyum it ma wëri wala ma toog saa kër maa ngi ñëpp yaa ngi jàpp kan waaye li ñu xam mooy ñun amuñu dara suñ ngànnaay suñu téere la téere yi nag nu mu téere woo baax na moo xam muy alxuraan moo xam muy ay way yeneen muy xasiida wala lu mu doon nit ko li am dong ci lay ak ñaan ya nga xam ne say addis la la nga am dong nga yor ñun amulu dara waaye nag li wér te wér mooy te wóor mooy am nan droit ci ñaanal Ousmane Sonko ak procès bi nga xam ne moom la yanu procès bi nag dafa am ñu bari loo xam ne ni ñu koy déggee dañ koy wengal te jox ko ci jublu waaye procès mooy ak jublu ci li nga jublu nga jublu ci doxal li nga xam ne mooy Sénégal te teg ko ci yoon woo xam ne yoonu dëgg la doon bañ a andi lenn loo xam ne ay caaxaan la waaye am fulla ci li ngay dox loolu mooy sababu projet bi projet boobee nag ñun ci lañ ànd ak moom mooy fas yéene koo jàppale ci saahir ak ci baatin saahir bi mooy bi wootee ñu dem wuyu ji na kujj ak sunu kujjëram ak lan man taxul sunu xoolee xulli xulli xulli ku ku nu xool nu xulli la waaw duñ ci duñ ci taxawal nag duñ ci way fal baatin bi nag mooy moom guddeeg bëccëg ak yem ñu mën a toog ci suñu biir kër ak suñu biir daara danañ ci ñaan danañ ko ñaanal di sàkk nag ñeneen ñaanal ko keneen ko am sa waay nag yaa xam yaa sa waay waaye ñu naa suñu waay liñ am ci moom ñun sëriñ daara yi Ousmane Sonko mooy du ko ñaanal guddi ak bëccëg dafa si yéene fii nga xam ne fi la jëmee réew mi wala fi la bëgg a jëm bu jëlee réew mi yàlla nangu loola tam ci am benn gàllankoor am nañ droit yi nag ne képp ku ko nar a gàllankoor yàlla nga gàllankooru loolu am nañ ko boobu waxuñu kenn nag waaye képp ku ko nar a gàllankoor yàlla na gàllankoor yem ci yow moom mu mucc yow nag yaa xam waaye daal li xam li am daal mooy ginnaaw dëgg nga tax a jóg te ñun gëm nañ dëgg ay Sénégalais lañ cent pour cent maa demunu fenn xamunu lenn du bi réew mi liñ jàpp ne réew mi kii moo koy doxal te doxin wii mu yor gëm nañ ko yaakaar nañ ko am nañ ci droit ci di ko ñaanal fu mu toll taxaw ci nag taxaw bi nag moom am na ci taxawin woo xam ne man nii laa waxee bu ko defee kaneen ci yéen wala comme doon ci yéen it bu boobaa bu waxee ma xam ne man daal li ma wax mooy bun bun bun noppul guddi ak bëccëg bu guddee na ñaan bu bëccëgee na dañ taxaw bu ñu wootee fu ñu wootee ñu dem su loolu ju kenn paas suñuy toos am na paas te mën noonu dem fu ñu wootee mu taxaw fa jàpp ca nañ ca mën a jàppee ànd ko pacifiquement nag parce que pacifiquement bu ñu ko dee wax yaakaar naa bu ñu dee wax jàmm ci alxuraan ak waa alxuraan la jiitu ci la jëkkee waaye nag euh, du ñu tax yambare parce que yambare dañ koo doonut danoo fekk ñi nga xam ne fi jiitu woon du suñu kilifa suñu bàyyi suñu maam amoon fulla fulla jël amoon nag ñu di ca leen dox ñu daal li wér te wér mooy noo ngi woo ci projet bi noo ngi jàng alxuraan di jàng suñu xasaayit buñ gisee addis bi ba xam ne day def boog ñaanal ko mu jàng loola. keneen ko xam loo xamul looy yàlla na Ousmane Sonko am jàmm te lim bëgg yàlla na ko am ci jàmm te euh, avancé ku ku ku koy fo ku koy ku koy fontoo mu weesu la fa jàll la. te képp ku jéem ci moom dara yàlla boo man ci moom dara ba faawun ak ku mën a doon ak foo mën a toogee nag ak noo mën a toogee am na nañ ci droit am na ci euh, am nañ ci xalaat nag te am nañ ci yaakaar ndax euh, waxoon naa ko ci man yaakaar naa ne euh, nee naa leen 1963 la la maa ngi maa ngi 63 ans 63 ans politique gu ma waaye damay liggéey ngir awaniru Sénégal awaniru Sénégal nag du ci yambare mm-hmm. suñuy doom la. suñuy sët lañ maanaam fas yéene ba lii nga xam ne moo fi nekk ñu séddoo ko wala mu am ca la ëpp keneen ku fi ñëw bu ëllëgee nga xam ne da ñëw di liggéey ñun ak koo mën a doon lan ca war a am ci àq dañ ko am bam doy sëkk waaye nag benn waay euh, yor wisam ak caakosam ak njàng euh, tubaabam ñëw bokk suñu ressources yi yëpp jël yóbbu ñun euh, tuj tuj tuj na ci tuj tuj googu dafa métti lin lin lin lin sonn dafa yàgg su maam yi sonn nañ xeex yi nañ dem lu ne defi nañ ko ñëwaat buñ ñëwee euh, xeex ba ba tey njariñ la matuwul na war a ma tey buñ dikkee ñu tegal fi ay gars yoo xam ne euh, suñuy doom lañ suñuy mag lañ suñuy rakk lañ yor nañ ay wist di sol seen karawaat waaye nag ñoom it dañoo dañ noo xaw bëgg a ndongutu ñun suñ daara nag noggutuwuñu waaye li nu am ci biir Sénégal bëgg nañ cee jot mooy moo xam ci ajàng arab la moo xam ci jàng alxuraan la moo ci gën a wóor ndax ñun war na noo jàppale sëñ bi koo xam ne eh, yow sa lépp yaa ngi sa sa bopp hmm. am bis rek maanaam eh, sëñ bi nga bëgg dara ci sa sam réew ah, loolu kay wax dëgg yàlla dañu mën jàppale nañ ñu dimbale eh, taxaw ci ñun nañ taxaw ci ñun moo loolu moom lañ bëgg nañ taxaw ci ñun taxaw ñun nag bu ñu ko waxee mooy. danoo gis ne ni war taxaw ci ñun taxawuñu ci moo tax ñun nag ñu bëgg taxaw suñu bopp kon taxaw gi taxaw suñu bopp nag mooy danoo fas yéene nag lu lu lu luy Sénégal nag nu bokk ñu ne jël la ji nag di lijjanti sunum réew di lijjanti suñuy doom di lijjanti suñu sët ngir ëllëg loolu daal moom lañ bëgg noo ngi siyaare ñëpp di jéglu kàddu yi bu xawee dëgër maa maa mel noonu waaye jubbu ci dëgër wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëriñ sëriñ Moussa Diakhaté bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah in alhamdulillah nahmaduhu taala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'uudu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'aati a'maalina man yahdihillahu falaa mudilla wa man yudlil falaa haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna sayyidinaa muhammadan abduhu wa rasuluhu mbokki jullit yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare jën balu àq deen balu àq fas yéene yëkkati ay kàddu yoo xam ni ay dëgg la ci ñun maanaam muy loo xamante ni lu ñu war a dund la ñun ñëpp te loolu mooy kii nga xam ni mooy président Ousmane Sonko nekk suñu candidat te li tax mu nekk suñu candidat lu mu jikko ay jikko la yu ñu gis ci moom ndax man gis naa ñu ko xam ñoo xamante ni ñoo nekk ak moom impôt domaine mën mu nekk inspecteur ñëw di con di di am ñu muy contrôler keroog bi ñu ko tegalee ndogu ñoo ñu tegal ko ndogu dafa génn dem ci biti ngir bañ ger ger nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni la'ana allahu raasi wal murtasi yàlla rëbb ne kii ger ak ki ñuy gere te réew mi li tax mënta tegu ci yoon ger dong la ger moo waral maandu mënta am ci justice bi justice nag àtte nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da cee wax lu bari ate dafa nekk loo xam ni lu am solo la ci am réew bu fekkee ñu koy am amal di ko amale ni ko yàlla bëggee te mooy ak mànke inna laa yaamuru bil adli wal ihsan yàlla suñu borom moo digle ñu maandu te rafetal dellu waxat ni inna laa yamurukum an tuwaddul amaanati ila ahliha fa izaa hakamtum bayna naasi an tahkumu bil adli suñu borom moo digle ne kuñ ci yëkkati responsabilité jox ma ko lañ la jox na ko yor ci njëkk na ko yor ci maandu boo demee ba lañu la dénkoon ñu laajaat la ko nga delluwaat leen ko ci njëkk te joxaat leen ko ci maandute réew mi nag kenn mësu koo jot ci doole ci njëkk ci nga ko jote njëkk nag bu fekkee ni jot nga ko ci mbir boo demee ba ña nga xam ne ñoo la wóoloon wóolu wóolatuñ la ah waaye bu yow itam bu bu maanaam goreel joxe ko joxe ko joxe ko euh, euh, attikat yi yonti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni balaa may indi sax li xadis boobu yonti bi wax ku ñu wax Ibn Rushdin dafa wax ni atte diggante nit ñi ci ak màgg mu ni bokk na ci jëfi yiw yi gën a màgg ci ñuy sàkku ay tuyaaba ay tuyaaba yu màgg moo ci am waaye nag ci kaw ñu amal kon na ko yàlla bëggee waaye itam nag jàng ci aparté itam topp sa bakkan bokk na ci kabaayir yi gën a léegi te boo xoolee discours boobu nga xam ne moom la président Ousmane soo ko def démb ne réew yu bari yu takk magistrat yi ñoo ko tàll te loolu mooy dëgg gis nga changement bii am yàggul ni ñuy sensé di sensé di sensé am na luñ bëgg li ñu bëgg nag askan wi ay borom yi xel lañ ay borom boromi xam-xam lañ ji nga nañu buñ buñ buñ buñ jéem a taal réew mi yonent bi dafa wax ne àttekat yi ñett lañu alxudaatu salaasatun isnaani fi naari wa waahidun fil janna yonent bi neen àttekat yi da ñett lañu ñaar ñi ñu ngi sawara kenn rek jëm àjjana ñu ne ko waaw yow yonent bi kan moo jëm àjjana ak ñaar ñan ñoo jëm sawara mu nekk jàng ba xam ne dëgg di àtte dëgg te yàlla rek tax xam ne lu mu àtte dañ ko àttewal muy alayhi salaahu bi ahkamil hakimin mu bàyyi xel loolu kooku mooy ki nga xam ne àjjana la jëm ak ki nga xam ne jàng na ba xam ne dëgg waaye dafa jeng li war na mu jeng nag dañ koo jox bu xaalis dañ ko joxub xaalis moo tax mu jeng moo tax du àtte dëgg waaye xam na sax li yoon waaye du ko def léegi nag kooku jeng na nga xam dañ ko joxub xaalis wala ñu wutal ko ay promotion ba tax mu topp ci ginnaaw nit di ko jaamu comme ni ko ngañ jàmba waxoon ndax nit da ko am dignité nit ko am laa wax kenn du la doo doon kenn ku dul yàlla mm-hmm. ab jaam kenn doon ndax nit ki saa boo demee ba sa moromum jaam bëgg laa tënk bëgg laa defloo loo xam ne lii mu lay def loo wóor na ni yàlla suñu borom bëgg ko yonent bi bëgg ko kooku ab jaam nga mm-hmm. ab jaam nga loolu kooku sawar la jëm moo ka koy ka koy ñëpp sawar la jëm mm-hmm. ki nga xam ni dafay atte te li muy atte ci dara mooy maîtrise mooy wax akamali naasi bil jahli mm-hmm. day def lu xaraam réew mii nag ñoo ko bokk ñun ñëpp bu ñu taal réew mi bëgg a taal réew mi nag mooy bëgg a aw fen teg ko ci kaw dëgg dëgg mooy président Ousmane Sonko nii amul lenn lenn lenn lu mu def lu tax ñu war koo bañ. Mhm. Sénégalais la fii la juddoo jàng na xam mate na ko. jik ay jikkoom it mate na ko te njiit buñ koy tànn ci ñaar lañ koy tànn xam-xam ak jikko. Mhm. mooy yar boo gisee alxuraan naan wa ja'alnaa minhum a'imma. Mhm. defal naa leen ci seen biir kat ay njiit. waaye njiit yi ñuy nag mu ne yahduuna bi amrinaa dañuy gindi nit ñi waaye nag ci sama ndigal man suñu borom ci lañ gindi yahduuna bi amrinaa du ñu seet benn ndigal ak benn ngërëm bu dul ngërëmu yàlla yax doona bi amri naa yan qualification la ñu am lam maa sabaru ba ñu nekkee ay muñkat yar seen bakkan ba génn seen bopp ci jikko yu bon yépp ba takkaayu nag jikko yu baax ba kaanoo bi ayat naa yooxi noonu bañ demee nag ba am yaqiin nag ci alxuraan am ko ci sunna boobee laay taal nag def leen ay njiit kon bokk yi suñu njiit lii alxuraan xam na ko du ko yàq fenn dégg nga te mboolem ñi nga xam ni ñoom lay bokk bokkal réew mi ku ci wax alxuraan wala nga wax xadis danga ko yàq nuyoo bu baax sax mënul kon ay yi xel lañu ay boromi xam-xam lañu nañu bañ a taal réew mi bañ a taal réew mi nag mooy bëgg a fexe ba samp aw fen teg ko ci kaw dëkk loolu nag duñ ci bañ dara ndax yonent bi sallallahu alayhi suñu borom da ko waxoon ci alxuraan ni ko wa ka ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuuna kasiirun fa maa wahanuu limaa asaabahum fi sabiilillah wa maa da'ufuu mastakaanuu wallaahu yuhibbu saabiriin bari waa ne yonent yoo xam ne mbooloo mu bari ànd nañu moom xeex ci yoonu yàlla te xeex ci yoonu yàlla xeex ci sa dignité xeex ci nekk su dox ñu bëgg laa def jàmm loolu loolu xeex ci ci sa bari waa yoo xam ne mbooloo mu bari mu man ànd nañu moom mosu ñoo doye bi mosu ñoo wattandiku waaye sunu borom bëgg na maanaam muñ gën yor muñ gën yor ba tax leen maa dal ci kanamu seeni noonu du ñu doyadi bu ñu wattandiku du ñu fayabul ci kanamu seeni noonu loolu muñ mooy tax ñu mën a am loolu muñ boobu nag tekkiwul da nga naan te toog yàppar toog luñ la def nga nga dee damay muñ déedéet muñ boobu muñ ci xeex lañ wax muñ ci jàkkaarloo ak jàkkaarloo ak seen noonu bu la bëggee teg lu dëgg da ngay da ngay bañ président Ousmane Sonko kenn ku ko maatee doon candidat 2024 suñu borom dong moo ko ko te maatee doon te yàlla lay fal xoolee ku ñu bëgg la te kenn du xam loolu lu ñu la bëggee waaw yàlla buy fal nit xoolee nit ñi la ñuy wëlbati ñu bëgg la te kenn du xam luñ la luñ la bëggee buñ bañ dara nag lu mu laaj rek nañ ko ci dem ba jax takk dem ba jax takk loolu sa suñ kii wax doon wax naan buñ bis buñ ci àggee buñ ci bañ dara buñ ci bañ dara lu dul dëgg ku ci dee sahid nga maanaam koo ku dee ci dëgg sahid nga boo ci dee dem àjjana ku la rey bu dem day dem sawar kon nag buñ ci bañ dara buñ ci bañ ndax ñii koy nga xam ne moom lañ ñoom lañ ñoom lañ jàkkaarloo seen intérêt bopp képp képp moo ñuy jël mbooloo mu bari bokkoo ñu koy séddale ay benn benn di jox ay suuf di leen jox ay passeport di leen jox ay 4 x ba bëgg démb rek am na kilifa ku ñu ko jox ay 4 x mu di ko delloo xam nga loolu ñaaw na ci dund bu seer bi boo génnee fii essence bi ak courant kii yu bëree bëree bëri dafa yomb mais taxi yu bëri yi na ko dafa dafa métti nit ñi ñu ngi baadoole sonn nañu te gis nga ñu ngi dajale rek askan waa ngi dajale président de la république Macky Sall xam ne bis dana dikk du moo mu Ousmane Sonko waaye moo réewum Sénégal la na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax te bis bu ngeen wëlbati ko ci kaw dana xam ne wëlbati ko nañ ci kaw maa ngi taxaw ni foofu ba ngeen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mboolem ñi suñu kàddu ñu nuyu mboolem ñi nga xam ni fekk nañ leen ci barab bu tedd bi ci guy mbind ñu tas téere yàlla bi di ko jàng joxe ay do ngir ñaanal suñu njiit suñu président président Ousmane Sonko amma yujibu al-mudtarra idaa da'aahu wa yakshifu as-suu' wa yaj'alukum wa yaj'alukum xulafaa'a al-ard a ilaahun ma'a Allaah qaliilan maa yàlla rek kay wuyu ki nga xam ni dem na ba loru geesu gisul benn ndimbal yaakaaru kenn ku yàlla tey peuple sénégalais bi foofu lañ ñi leen waroon a taxawu ñoo leen di bundu ñi leen waroon a dundal ñoo leen di xiifal ñi leen waroon di libérer ñoo leen di tëj ñi leen waroon di dundal ñoo leen di rey kon nag al achabu muftar le peuple sénégalais àgg na fi yàlla doon wax ni bu fa nit àggee bu ma tàllalee loxo ma wuyu ko am man yujibul muftarra ida daa wa yakshifu suuf yàllaay wuñ ñi li ñu metti ñun ñëpp li ñu metti mooy injustice ñun wutuñuy intérêt ay sëriñ daara lañu suñuy daara doy nañu sëkkub liggéey mm-hmm. suñu sas ci réew mi doy nañu sëkk mm-hmm. waaye dañoo mënta seetaan injustice mm-hmm. ndax liñ donn ci suñuy maam donn ko ci suñuy maam yi sëñ daara suñuy maam ñooy Cheikhul Khadim borom dëkk bii liy coonaam yépp mooy ñàkk a nangu injustice loolu dongay coonaan moo waral ñu génne ko réew mi moo waral ñu def ko résidence surveillée moo waral ñu yóbbu ko gànnaar moo waral ñu yóbbu ko Thièyène mag mu baax ci réew mi ñu di la tudd tey la tax ñu di la tudd mooy dangaa nanguwul woon noteel soo ko nangu woon duñ la xam tey doo mel ni nga mel kon ñun bu ñu donnoo bëgg a nangu noteel mooy war nañu leen bu ñu nangoo lool war nañu leen nañu def lépp lu ñu man ba injustice jóge ci réew mi injustice mu ndaw mu bari ak fu mu mën a jóge as gor du ko nangu as gor alxurru laa yazlimu wala yuzlamu indahu gor du tooñ waaye kenn du tooñ fa wetam mu di ko nangu kon loolu mooy mbir mi léegi nag suñ digganteeg président Ousmane Sonko ñun sëriñ daara yi laajte wuñu kuy sonn laajte wuñu ndax lu mag ñaar fukki at yu teg ñu ànd ak moom di ko jàngal alxuraan ku dégg muy jàng alxuraan di nga xam ni kii xëyul xëy jàng alxuraan ku yaakaar ne nag alxuraan mën ngaa tëb tëb jàng ko ci nax jéemal nga ko jéemal nga ko laay joo song dina la mbotti teg la suuf alxuraan du caaxaan da ngay am moom ab diggante am ak moom jaar-jaar boo ko songee mu nooy nepp ànd ak yow ci saw làmmiñ di tem tem yi ñëpp naan ëskay loolu mooy sa sa diggan suñ digganteeg moom kon dafa jàng alxuraan ci ñun ñii ñuy sëñ daara yi su ko waxee ñun ñii jubluwuma ci sama jëmm samay moroom yu ma xam yu baree bari yu jàngal Ousmane Sonko ma xam leen ci réew mi la ba ca des mooy ñun sëriñ daara yi dañoo dugg nag ñun bokk nañu tey xaaratuñu lenn nag xam nga lu ñuy wax président Sonko la ansaar waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko wax la banu Israël waxoon banu Israël moom dañ ni ko fadhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaaciduun loolu lañ ko waxoon dañ ko noon yow Ousmane Sonko demal yaag yàlla ngeen xeexi nun fii la ñuy toog boo gañee waaw ah, dama dama ko natt foofa da dama yàgg yàlla ngeen xeexi soo gañee ñu ñëw ànd ak yow noos buñ la gañee ñu taxaw naan anday ah, saan moom de mel am Thomas Sankara la duñ def noonu waaw la ansaar waxoon la ñuy wax ansaar yonent bi dafa tolluwaat fa musaa tollu woon ni leen lu ngeen di wax ñu ni ko yow yonent yàlla bi law istaaradta bina hada al fa xuttahu la xutnaahu wala yataxallafu minna rajulun waaxid fa sir ala barakatillah géej gi boo jàkkaarloo nag moom xuus géej gi ñu ànd ak yow xuus ko lu lay lu la nar a lekk nun lay njëkk a lekk barke bi yàlla àndal ak moom ba dem li ñuy wax président Sonko mooy sëriñ daara yi nekkuñu sa gannaaw sa kanam lan nekk sëriñ daara yi ñi ngi sa ndejoor ñi ngi sa càmmoñ lépp lu lay dal ñun nag yow la ni ànd booloo mu dal loolu mooy suñu pas-pas lanu am nag tey ñi ngi ci mooy ñaan te ku xam nag ñaan di nga xam li ñuy def mooy lan ñi ngi jàng suñuy ñaan alquran la ñu am dem nañ ca ay dogam la ñu am dem nañ ca waa Touba boole nañ ci bax baxaa bi mu ñu toog yooyu sew sewaan yi maa ngi ko jubloo yu sew sewaan ci boo ko nattee ci alxuraan waaye daay sëñ Touba sewut daray sëñ Touba sewut waaye damaa bëgg wax ne rek yooyu ñuy nëbb te ñu bari ñu ko génn nañ ko ndax jaral nañ jaral nañ ko léegi nag kon lii ñuy def dañ koo defe Touba tey waaye réew mi yëpp ñu ngi koy def ku nekk fa nga nekk ci réewum ci Sénégal wala bitim réew fa nga nekk yaa ña nga fa nekkandool jël leen kaani yi tas ko jàngi kaani jàngi dog jàng la ngeen xam moo xam say fii ngeen di jàng Hizbul Bahri ngeen di jàng bax baxaa ngeen di jàng wala loo kaana xaqan ngeen di jàng yéen a xam nu ngeen di jàng ngeen jàng ko ndax yàlla Serigne Touba li mu jàngal mooy dafa noonu moom bu amee lu ko naqari wala mu am lu muy tawat kam yi woo mooy boroom aras loola ma ngi ca xaalul yarkan du woo kenn ku dul borom aras nun nag am nañu lu ñu naqari ndax injustice benn waay bu dëkk ci réew mi gën ci doomi réew mi ñépp waroon a jóg cotiser ngir def ko candidat ndax xam ni moo gën ci réew mi ab groupe groupe ku ndaw taxaw ni doo fi nekk candidat ah. ñu bëgg a seetaan loolu loolu loolu naqar gënu koo rëy du jëmmi Ousmane Sonko rek parce que mm-hmm. Ousmane Sonko symbole ab projet mm-hmm. projet boo xam ne lu ñu naqari woon ci sunum réew projet ba jël na ko en compte mm-hmm. lañ naqari woon xam nañ ko mooy réew mu moomul boppam moomul économie moomul éducation moomul daraam Ousmane Sonko ñëw ni ne rabbi yàlla man yàlla laa gëm ñi ngeen gëm man gëmuma leen gëmuma dëkk sàngam ak dëkk sàngam ak kuréel sàngam ak kuréel sàngam yàlla laa gëm mm. ñu ni ko doo ko fi waxee lu ñuy wax ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah loolu lañ la la mu'minu ali firawna waxoon ñu ni dañoo bëgg éliminer waa ji lu tax ñu koy éliminer parce que daf ni man li ngeen gëm gëmuma ko mais Serigne Touba moo ko njëkk a wax loolu Souleymane Baal moo ko njëkk a wax loolu mm. Cheikhul Hadj Malick moo ko njëkk a wax boo loolu suñu maam yu mag yi fi xamoon di ay nit yu dëgër fit dëgër ngam amul njàmbaar te gëm yàlla ñoo ko njëkk a wax kàddu googu buñ ñu fontoo xam nañu Ousmane Sonko bu ñu kenn jàngal ko Ousmane Sonko buñ ñu fontoo xam nañ ko xam nañ ko ci ngor xam nañ ko ci jom xam nañ ko ci fulla xam nañ ko ci yar xam nañ ko ci teggit xam nañ ko ci nangoo jaamu yàlla te bañ koy xam ci loolu politigul booba étudiant étudiant bu nekk ci Gaston Berger di jàng nekk première année lañ ko xam muy dem ci daara yi di jàng ca daara yi Serigne Moxsin Diop ca Ndar man mii jàngal naa ko Aboubacar Tine ca Tëngéej jàngal na ko ak ñeneen ak ñaneen ak ñeneen ñu ma xam ñu bëgg a ñëw nag ni ñu Ousmane Sonko ab lii la ab lële la ab lële la te ñu xam yow di nga yar sa doom ji ci kër gi hmm? léegi nag ñun lu tax ñu mën bëgg a ñàkk la xam ko ba pare taxaw ñu ni koy waxal ñu koy nangu wala naktumu shahadat allah inna idan la min al aathimin yàlla loolu la wax du ñu nëbb seedeb yàlla wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu aathimun qalb bu leen see bu leen nëbb seede li ngeen xam wax leen ko li ngeen xam wax leen ko li ngeen xam mooy Ousmane Sonko gor la jullit la taalibe la gor la jullit la taalibe la sunu doom la ñun waa daara yi ku ko mag ci ñun itam nangul ni yaa ko jur parce que yaa yor daara muy donga daara nangu ko uuf say dog looy def def ko ca fajar yàgg guddi yàgg fu ñu mën a toll lu ñu xam ci ñaan nañ ko ko ñaanal képp ku jéem a dal ci kawam bi suñ kaw wee dal doo àgg sax suñu kaw wa dammiran kulla aadain tadurru bina qabla al wusuli lana yallaahu yallaahu doo agsi wa dammiran kulla aadain tudur bina qabla al wusuli lana yallaahu yallaahu loolu la Sëriñ Tuubaa wax waaw kon ci turu Modab la ñuy defee liggéey bii du tournée nationale sax waaye ñaaxe mbokki daara yépp ci àddina euh, nun en tant que président Modaf ñu ngi wax ak suñu mbokki taalibe yëpp fu ñu mën a nekk ci biir Sénégal ñu def ay jataay jataayu toroxlu jataayu dellu ci yàlla jataayu déposer suñu plainte te yàlla da Cheikhul Xaaji Malick waxoon fala budda min shakwa ila kurbati man daal fa maa liya gayrullahi jaabiru kasrati wala jaabira jaabiru kasrati cheikhul xaaji maalik daf noonu man de mënta ñàkk ci man ma porter plainte déposer ko ca yàlla nun ñëpp nañu porter plainte du contre x de contre x xam nañu kuñ koy def xoo xoo ma nu ko gën a tuddee du contre x waaw kon waaw soxna Bousso boobu laa doon kon soxna Bousso nañu porter plainte déposer ko ci taabalu juge bu mag bi nga xam ni mooy alaysa allahu bi ahkamil xaakimin plainte bi mooy nun danoo bëgg suñu réew danoo bëgg defar suñu réew senegal lan dëkk amuñu faneen suñuy maam fi lañu nekk fi lañu juddoo fekk fi baax lépp ñu def ko fi benn waay wala benn waay ñëw na aye na jox nañ ko kay gi ni ko ñaari ñaari at la ñaari bis la ñaari ñaari ñaari bis la mooy ñaari mandat togg na ayam ba pare neex naa neexul suñu yoon nekku ci bu ayam jeexee na dem jigéen ji bu fégalee suñu yoon nekku ci li mu toggoon démb neex naa neexul na jox ci aya tey su fekkee dañ koo wàcc ci ñun ni ñuy dégg ñun sénégalais mm-hmm. ay jigéen yu nekk di moo tax may wax soxna Bator mm-hmm. ay jigéen bu ñuy wujje mm-hmm. nga aye togg ba togg gi pare nga nekk fa naan ba ma toggee togg gi neexoon na ceeb bii amoon na lii ceeb bee nangam ak nangam dama nii ku sa ay fekk dangay ngay tege da joxe waañ wa ak ndab ya sa morom togg ñu xam ku mën a togg maa ngi jéggulu ñëpp kon liggéey baa ngi noonu ñaan la toroxlu dellu ci yàlla mm-hmm. ak mobiliser wu mm-hmm. ak wane ni ñun sëriñ daara yi ni ko sëriñ jaxate sama doomi di ah, yaa ji waxee ni ñun mm-hmm. duñu dellu gannaaw nun duñu ragal ah. nun ñoo njëkk a joxe suñu bakkan ah, ndax Ousmane Sonko buy taxaw naan joxe naa sama bakkan ci ñun la jànge lool ci ñun ñii la ko jàng kon nag duñ ko ko jàngal ba noppi di ko seetaan déedéet duñ ko seetaan dañu ànd ak moom gunge ko ci lii gunge ko ci xeexu dafiy nekk candidat parce ak xam la te kenn du ko ko xañ gunge ko ci xeexu bu nekkee candidat day gañe mm-hmm. parce que réew mi rek doon ko moom de kun ko jox yaa ko moom gunge ko ci xeexut bu gañee kenn du ko gàllankoor day defar Sénégal ba ñëpp bég mhm. Sénégal yëpp kontaan mhm. jàngale ko ci alxuraan yi nekk ci jàmm duñ fi nekk di politique duñu xeex duñu xuloo yor seen i téere mhm. di dund dund bu neex ñëpp am jàmm yàlla na ko yàlla defal asalaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain mbokk yi tëdd yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu euh, fadilatu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xafizahu llah wa raa ak mboolem njabootu Cheikh Ahmadou Bamba gi yëpp ci turu sëriñ daara yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi ak ñi nga xam ñoom ñoo bokk ak ñoom seq liggéey bi nga xam ne moo aju ci lépp luy doxal am réew te di ko ñoŋal te tey jii nag ñu am mbégte lool ñu wax Touba ginnaaw bi nga xamee ne mouvement bi bii di moo dab te sëriñ Tahirou Fall jiite ko ñëw fii teew ci Touba Guy Mbind ànd ko fekk fi mbooloo mi nga xam ne sëriñ Maam Thierno Mbacke ma nga ci kanam sëriñ Abdou Khadim Sarr jiite ko sëriñ Abdoulaye Yaqin ak sëriñ Ahmadou Fadal Samb ak mbooleem ñi nga xam ne mu nekk ci jotaay bi dëkk yi gox yi gox euh, di am mbégte lool ci ñëw sëriñ Tahirou gi nga xam ne moom mooy président Madab di mouvement boobu nga xam ne moom moo lëkkalee doomu daara yi nekk ci biir Sénégal yëpp euh, nekk ay patriotes fas yéene taxaw jàppale président Ousmane Sonko qalban wa qaaliban di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu may ci ndam te rafet nañ ci njort ndax mbokk yi fi dajee yëpp ay nit lañ xam ne si daaray àdduna ñoru leen yàlla ay kese leen ñor ak réew bu jàkk ak lu baax ñun ku ne xam nañu suñu féete mooy alquran téere borom bi subhaanahu moo gën a neex lépp moo dàq lépp moo ëpp lépp mujj ak rafet man araada niya fa alayhi bil quran wa man araada axira fa alayhi bil quran wa man araada huma fa alayhi bil quran kon ñun liñ jàppoon démb jàpp ko tey ñaan yàlla ëllëg ñu sax ca ba faatu loolu moo gën lépp àddina waaye nag dafa bokk ci lu ñu suñu borom digal ci alquran wabtaqi fii ma aataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia wa ahsin kama ahsana ilayka kon dafa am cër boo xam ne àdduna fii lañ koy ngir mën koo ñangal suñu àllaaxira taw dafa bokk ci jaamu yàlla mooy fexe ba euh, dund gi dal am stabilité al am na wala istiqraar wala dund suñu dund doo ko laaj te yoon di yëpp moom la ñoo xeex ko sëñ sëñ Tahir nekk lu yàlla bëgg ci kaw suuf euh, mus nekk lu ab benn yonent mas a mus a nekk lu benn suñu kilifa diine fii ci réew mi bëgg ci kaw suuf loolu nag sëriñ Daara bi ci des gën a ñi dalal mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ci jotaay bi di wax ne ñun de na seen xel mel Touba gi nga xam ne fi la ñu tàmbalee liggéey bi euh, ci nga xam ne ñoo jiite liggéey bi depuis mën naa ne at ak genn wàll ñu ngi ci dox mën naa ne penku ak soow Touba ak gànnaar ak Saalum duñu dem nañ fépp de waaye bëri na fuñ ci daj lool toog ci keppaaru sëriñ daara ak ay imaam ak boromi xam-xam waxtaan ak ñoom ci mbirum président Ousmane Sonko dama ciy fàttali rek ñaari yoon mbokk yu bëri yi ma itoo fii fekk nañ loolu biñ ko sëñ boobu di yi jëkkoon a jàll élection locale yi loolu bi ñuy dem di tourné suñu tournée bi nga xam ne ñu ne def chaque alxames ajuma ñu tourné ñu euh, àndandoo suñuy oto dem fekk sëñ daar yi waxtaan ak ñoom fam benn imam boo xam ne sëñ daar imam la ñu dëkk fii ci côté Ndaamaatu dañoo dem mënuñu ah maa ngi seen gannaaw te rafet naa njort bu baax a baax ne lii ñuy xeex danañ ko am incha allah ndax day man day toog naa ba taay tuur samay ramo ngir président Ousmane Sonko am ndam toog naa ba tàyyi yow guddi su jóot yàlla toroxlu ko ngeen ñaan yàlla Ousmane Sonko mucc ci Adji Sarr ak ay pexem nii la ko waxee yaakaar suñu maam fekkoon na ko suñu xam daal fekkoon na mag la ci dëkk bi naka noon tamit dem nañ ci imaam boo xam ne si bokk ci kilifa yi nga xam nekk ci biir jumaa Tuubaa eh, ak sax eh, beneen kilifa boo xam ne si ci imaam yi nga xam ne bokk yi gën a siiw ñu di waxtaan ak moom daf ne man de doog gi mu am bu ngeen ñëwoon ci biir kër gii bi mu wax nañ jàppale keneen ku Ousmane Sonko dafa leen ndax ay kilifa lañ ñu wax ñun yàgg la fekk fi ay yu bëree bëri koo ci dem la lii de xanaa mbooloo bi xaar waaye ñun fekkoon mu nekk suñu xol fekkoon mu nekk suñu xol kon nañu jàpp ne dëkk bii di Touba ñi ñu fi dem ñëpp xam leen fi te ay seen ñu ngi ci ginnaaw Ousmane Sonko ah koo xam ne si ne ko ci na ngeen na ngeen jàkkaarloo ngeen ñu xool loolu danañ xam baax bu baax baax li ñuy wax dëgg la euh, bi ñu des si mooy li nga xam ne moom mooy injustice bi nekk ci biir réew mi sëñ Tahir wax ko mbokk yi ko jiitu wax ko mooy lu muy liñ dëgmal mooy le 16 le 16 mars mbokk yi ñu ngi wax ne sëriñ daara yi li ñu njëkkee fii ci Touba mooy ñaan ñaanal yàlla suñu président Ousmane Sonko yàlla musal ko ci ay noonu waaye itam fomm làmmiñu ñi nga xam ne ñoo koy fexeel ngir jëm koo xam candidature am boobu te mu am xorriya pour mën a nekk mbokk ci ñi nga xam ne ñii. Mm-hmm. posé candidat pour mën a nekk président. yàlla ñu yàlla defal mu nekk suñu président 2024 président mboolem Sénégal kon ñu ngi dalal ñëpp di wax ne fii de dañuy taxawal benn cellule boo xam ne moom mooy boot ci ginnaaw mu def ci turu sëñ maam Thierno Mbacke Sëñ Abdou Khadim ak mbooleem sëñ daara yi nekk ci biir Touba yëpp waaye nag ñun nag nekkoon nañu euh, groupe boo xam ne rek mën naa ne sëñ daara yu bëri bëri ci biir Sénégal ñu woon ci groupe boobu euh, groupe boobu nag groupe bu yàgg la di ci waxtaanee lépp lu ñëwal président Ousmane Sonko bañ ne sax ma duggee sax di fa dugal ma gis naa ko xam daf du dóor ju gëm a dégg naa temps la daal dugal ma ne ko yaatooñ groupe boobu sëñ daal dañoo ba nga xam a moom dugal Macky ma ngoog dañu baax maanaam suñ Macky na lu baax sax dëgg dëgg Macky Sall Macky Sall la mu dugal ñu génne groupe ba ni kon nag yàlla ñu euh, ñu yàlla musal ci lépp loo xam ne fexeel Ousmane Sonko ak mboolem ñi nga xam ne ñoo bëgg réew mi ñun nag suñ jubluwaay mooy nekkuñu ay politiciens di dox ci langue gi naan dañuy xëccum réew li ñu bëgg pour mu leen Sénégal yëpp mooy dañoo gis loo xam ne jàmm man naa nekk jàmmi Sénégal lu suñu maam daan xeex dem suñu bàyyi di ko xeex ñu egg ci ñu di ko xeexal suñu set ak setaat mooy gis nen ne nena yi lan mooy nen nena gi mooy ñun alxuraan dañoo jàngal suñu diine dañoo jàngal ak tànn tànneef mooy tànn ko ay loxoom set tànn ko maandu tànn ko dëgër tànn ko am xam-xam ndax dañuy wax ne am réew ñetti ñoo kii ñetti critères yi moo ko yor mooy ak jub ak bëgg sam réew ak xam-xam te ñett yooyu booy xool li ci liñ ci gën a ñu suñu daaree mooy ak jub ci président Ousmane Sonko ndax ñu dara sawuñu dara du feesu suñu bët dara dara jaaxaluñu Ousmane Sonko dégg naa sax sëriñ si ñu wax ne euh, ci alxuraan waaye ñun suñu daara moom kenn du jaay kenn du jaay alxuraan kenn du jaay alxuraan kon Ousmane Sonko dañu ko bëgg ngir critères yi moo indi naka la ala ko jikko yu rafet yi te jikko yooyu moom lañu suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu eh, camil alxuraan ji tax tax kaana xuluqul xuraan moom loolu lañu tàggoo yéen salaam alxuraan wa taala mu ñu jagal suñu réew di ñaan yàlla subhanahu wa lépp luñ fi ñaan eh, yàlla nangu ko eh, rawatina ngoon àjjuma gi kon ñu ngi jégalu ñëpp ñu wàcc suñu kàddu foofu doon wax kenn si ñoom asalaamaaleykum wa rahmatulah. ana kàddu gi. kon. rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri ñu ngi nii mbokk yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi ak ñi nga xam ne ñu ngi koy seetaan su ko defee kon suñ kilifa yi nga xam ne jiitu nañ fi liñ jot a wax rek mooy li nga xam ne moom lañ ñëpp fas ku wax ak ku waxu waaye pas-pas bi benn da jubluwaay bi benn la su ko defee nag am réew dañuy dem ba toll foo xam ne képp koo xam ne dangaa toog ne sama yónni ko ci bu réew ma yàqoo yow te dañoo toll foo xam ne nag injustice gi dafa ëpp ci réew bi dafa ëpp ndax euh, maa ngi dégg benn yëgle boo xam ne magistrat yi def nañ ko nee na bu leen kenn attaqué wala ñuy naqarlu lu mel noonu ma ne leen ah ñun de mënuñoo ñàkk bañ a wax ci yéen ndax Pape Ndiaye kat daa wax information yooyu ñu jàpp ko la ko ràpp ci kaso ku mandi loi bi day aaye ku mandi di dawal oto nit mandi ñu téye ko daa koy bàyyi ñaari nit lañ waaw léegi loolu nan lañ koy mën a gisee ba pare noppi ca wala dog dañoo bëgg a def kon wala ta tumu chandatata wa ma yëg tubaab bay no asimul xal bu nëbb dëgg boroom xol bu te sëñ daara yi kenn ku ne xam nga ne xol yu set lañ yore li tax ñu yore xol yi set mooy alxuraan day defar nit te bis bu ne ci lañ dëkk nag daanaka alxamis dong dong ku ca ku ci xaw a amuk tàggal mel na man daanaka alxamis nga koy jëlal bañ koo jàng waaye ñi si def ñëpp dañ koy jàng tout le temps kooku kon bu yàggee sa xol day set su ko defee nag euh, fi mu ne fi ñu waroon a fekk sénégalais yi tey jii may wax ak yéen mooy sénégalais yi naka la ñuy def ba kenn ko nañu ubbil ko compte bancaire mu xam ñaata lay am ci pétrole weer wu ne ñaata lañ ko war a verser ci compte bancaire débat bi loolu la waroon na doon tay nga xam ne sénégalais bu ci nekk waroon nañoo xam kat gaz bi su génnee lan lañ ko war di verser par weer ci compte waaye nag comme li ma doon wax tey ci suba maanaam ñun dañuy jàngal aw làkk mais jàngaluñu xam-xam parce que bu ñu jàngaloon xam-xam nëgë ni fekk na tey ñu nekk ci débat yooyu waaye Sénégal. góor jigéen góor jigéen ci wàllu awra yu ñàkk fayda su ko defee orienté nit ñi ñuy waxtaana loolu na réew mi amul ay borom yoo xam ne war nañoo war a wax lu jëriñ réew su ko defee nag ginnaaw dem nañ xam ngeen ne maanaam siècle bu ne suñ borom dana feeñal jëmm joo xam ne mën naa xeetiloo askan waaye nag na fekk ñu xam ko parce que xam ngeen ne Mamadou Dia bi mu fi bi mu fi nekkoon doon laaj réew mi ak bëggoon ñu jàppale ko booba ñi mu tombeeloon xamaguñu woon euh, jamonoom booba dëgg dëgg xamuñ ko woon ndax bu ñu ko xamoon ca booba kon ñun suñ daara yi tey ñu ngi nekkaat ci beneen domaine waaye du nekk ci domaine bëgg a defar réew mi waaye fi ne réew mi yàqu na génn xeetu yàqu boo xam ne ku ñëw ba koo defar sax da nga sol kon nag bu ñu yàlla indilee koo xam ne tombé nañu moom jamono mu nekk daanaka suñ morom ba pare itam jàng la tubaabee jàng jàng ni lislaam digle mu jàng ko xam ko su wax dëgg yàlla nag kooku am nañ occasion pour mën a defar suñu réew 60 ans yi nga xam ne da koo tardé am nañ occasion mën koo defar beneen bi ci des mooy le 14 le 15 le 16 boobu nga xam ne ñetti fan la yoo xam ne Ousmane Sonko ci boppam wax na ne dañuy woote euh, meeting boole kook woote manifestation boo xam ne dañoo bëgg mu daj réew mi kap ni nga xamee ne Firawna ba mu ne tëmb ci biir ndox mi ndox mi da ko wër ci wat yëpp ñu fexe ba wër ndomba nguur gi ci côté yëpp nag ba nga xam ne pexe yu bon yi muy jéem ci président Ousmane Sonko loola mën a bañ a antu ni mu bañee antu nag mooy ñun ñëpp nag ci contrôle judiciaire lañ nekk te buñ bëggee mu dañ mu dañ de waaye nag saa yu bëggul mu dañ nag du dañ de inna Allaha laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim ay nit buñ bëggee dara soppeeku ñoom ñooy jug fexe ba mu soppeeku mu soppeeku su ko defee nag beneen bi ci des itam mooy sénégalais yëpp nañu fexe ba le 16 na ñëpp indoone maanaam nañu indoone mbedd yi mbedd yi nañ indoone ak nit fexe ba lii nga xam ne bëgg nañ koo teg te du dëgg ñu fexe ba fanko loolu mu jàll ca ànd beneen bi ci def bi may daanee la mooy al oustaz Tahir da cee dafee wax sànq lu am solo moo tax ndajeem sëñ daara day am solo lool. xam nga jox na ma benn xam-xam boo xam ne maa ngi ko doon ma ko xam bayu ma ko xel maanaam yàlla bu la naree dimbali maanaam tooñ su ak tuuti ja day jàkkaarloo dalay jox teral la maanaam jox gi ak tedd nga ji ñooy ànd waaye nag bu fekkent ne sëntoo ko ba weddi loolee mu la defal wala ngay ñàkk ngor ak jéem a ko ji ah ak tension nocc gi ak toroxal gi ñooy ànd kon loolu it lu mat a bàyyi xel kon su ko defee nag ñun Sénégalais yëpp nañu xam ne président Ousmane Sonko bu fekkente ne tey dund ko neex rek la bëggoon wallahi lancim giñ naat ci yàlla ne su fekkoon dana Macky Sall jox ma 5 milliards ma ñëw ànd ak yow giñ naa ci yàlla ne dana ko ko jox ngir mu waaye bu fekkente ne Ousmane Sonko daa man a bàyyi loolu lépp fa mu doon liggéey ñu dàq ko fa mu bàyyi intérêt yooyu mu amoon yëpp mu bàyyi ko ngir réew mi rek waruñoo gën a gore kon nag ñun ñëpp nañu fexe ba taxawu ko ba lii nga xam ne moom lay yóotu ñu ñaan boole ko ak suñu ñaan nag ñaan suñu borom teg ko ci loxoom te fekk mu ànd ak wér ak tal ak euh, fekke su boobaa nag li ñu bëgg lépp danañ ko mën a saafara kon kàddu yooyu wax di jaajëfal nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi yëpp tàmbale ko sëñ yi nga xam ne daanaka duñu leen dégg ñuy faral di wax ñu ñëpp ñoo bokk liggéey bi ndax bu doon ñun dong du dem kon ñun bokkal liggéey bi yëpp di wax ci kuréelu mu dab ak ñi nga xam ne suñu naataangoo lañ ci mbir mi nekk suñuy seen daara jiituñu ñoom itam ñu topp seen ginnaaw fexe ba ñu leen a fakkastal ndax njiit kat doo ko jiital pare di ko fakkastal kon ñu ngi rafet rafetlu liggéey bi di jaajëfal mbooloo mi fi teew yëpp a ñi nga xam ne danañ jot information yi ci ginnaaw incha allah wasalaamaaleykum wa a wa barakatuh asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi ginnaaw sant yàlla subhanahu wa taala ñu ngi mbokk yëpp Muntaqa di ko ñaanal suñu nga xam ne am liggéey fi ñu sottal moom noonu lañ ko ñaanee nga xam ne ci réew mi yëpp di yëkkati kàddu ci pour mu def nga xam ne la président jiital ngir muy suñ mag ci suñ magum daara waaye Cheikh Omar Bamba mi nga xam ne moo dox suñu diggante président ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom la ko àndal yëpp ñu ñëwoon fii ci Touba doon tijji problème bi nga xam ne moo tax war na ko def pour que aussi ñu ko tasaare ci réew mi waaye tijjee ko ci surne bee nga xam ne moom la doon def Dakar dégg ngeen di président wax nee na ginnaaw yàlla ñaan moom moo ma moo tax ñaan yi ñu bëgg ànd ak moom gunge ko ba 2024 incha allah moo tax yaakaar naa su ngeen gisee mbooloo mi ci suñu ginnaaw xam ne ñëpp ay nit daara waaye ay doomi daara nekkul ñi nga xam ne dañuy bubboo daal wala di lijjanti ko daara ndax ci réew mi am na ñoo xam ne lijjanti ko daara mhm. yaakaar naa soo gisee borom kanam xar kanam yu leer yi te sell yi nga xam ne ñoom alxames ba alxames rek la ñuy génn waaye bis yëpp dañ ko def ci alxuraan kon président nga sa xel dal li muy dale mooy euh, alxuraan mooy lépp te loolu suñu borom subhanahu wa taala wax ci alxuraan wa innahu la zikru laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun ñun waa alxuraan ci la nekk am nañ fayda suñu gisee dëgg ne dëgg nii ndax loolu lañu suñu maam yare loolu la ñu nambatal kon moo tax ñu daje fii eh, oustaz Tahirou Baye ko bu Dakar am na ay mbokk yu ñëw ci suba ñoom it xëy na dafa am lu leen dëgg waaye Dakar lu jibal bu fekkee si gis bi muy sëriñ Xaadim ak sëriñ sang ñun ñëpp seen taxawaay kon naa leen wax mooy ñu xam na réew mi ni ñuy doxe waaye xam na ni def ba lépp ba ki nga xam ne moom lañ jàpp ne moo war a sauver Sénégal mu président Ousmane Sonko ñu ànd ak moom ci xeex bi ragaluñ ko ñu xoqatal waaye ragaluñ ko ñu ger ndax ñun ñii fi nekk ci nekk ñun gaa yi toll nañ foo xam ne ngay wax rek ñu xam ne mbooloo nekk sa ginnaaw ñu jéem laa woo jéem laa ger te am nañ ci ay profil ñu xam ne ger boobu ngeen di fexe ci ñun mënu ko am ndax dafa am loo xam ne dañ ci xas suur ba nopp muy ginnaaw buñ suuree suñu borom suur suñu alxuraan regg nañ ci lépp lu dul moom kon su ko defee ne ñu bàyyi xel loolu di di waaye di sant euh, sëriñ daara yi nga xam ñoo nekk suñu ginnaaw xam ngeen ne yi suñ tegee suñ doxee tuuti rek jàng day daal di commencé waaye ñu dagg seen yitte ñëw ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ci turu Modok di euh, seen taxawaay bi nga xam taxaw nañ ko waaye taxawaay du lenn lu sofe Sénégal te nag muy jaamu yàlla ndax yoon daf moo xam ne xayru naas yi anfaahum li naas bokk na ci nga xam ne yitteem saa yu xëyee guddi wala saa yu xëyee suba ba ngoon lépp lu muy def mbaa di ko wax luy jëriñ Sénégal moo tax mu nekk koo day jaamu yàlla kon ñun ci réew mi dañ cee war a taxaw su may tëjee nag mooy depuis ci am Diouf ba ci Macky Sall mii di nekk dan daa sédd daal ñun nag dañoo am candidat boo xam ne su suñu borom subhanahu wa taala joxe réew mi day génneel daal war daara war su ko defee nag ñooñu yaakaar naa waa daara nag xam nañ seen bopp ci ne suñu gisee koo xam ne dafa jóg fas yéene fas yéene satisfaire taxawu leen ci saa yoo xam ne suñu war si bis Sénégal nan daa sédd école bi génne génne wàllu école bi sédd daal koo xam ne dañuy su ñëwee insha allahu taala day génne wàllu école bi génne daa génne wàllu daara kon loolu ñoom xam nañ bu baax ci bu baax a baax euh, xam ne daal loolu mooy suñu taxawaay sant mbokk yëpp sëriñ yi wax dëgg yàlla président comme na nga ko waxoon rek saa yu leen gisee xelam day dal ndax xam leen alxuraan ngeen di lijjanti boobu moom ngeen di dundee ku ngeen gunge ci alxuraan rek yàlla may ko ndam kon loolu lu am solo loo xam ñu ngi leen sant bu baax a baax di sant suñu taay xam na ne jot gi ñàkk na waaye ci suba ba léegi ma ngi yër yitte bu ko réew ñor waaye yitte bu ko ñoom waa daara ñor moo tax mu dagg ay yitte ñëw fekk ànd ko mbooleem mbokk yi fi téye ñoom daal ñoom noonu am ñaan yàlla mm-hmm. yàlla leen yàlla teg ñoom loo xamante ne ñoom seen bopp la ne tal waaye dootuñu talaat Ousmane Sonko tey moom mbooleem pexe jëm ci moom yàlla na ko yàlla naxasal yàlla ko te yàlla na yàlla dimbali Seydina Ousmane Sonko seen kaw yàlla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 bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad wa yakun lahu kufuwan ahad subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar bismillahi arrahmani irrahimi qul audu birabbil falaq min charri ma xalaq wa min charri gaasiqin ida waqab wa min charri naffaathaat fi luqad wa min charri xaasidin ida xasad subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar bismillahi arrahmani irrahimi qul audu bi rabbi nnas maliki nnas ilahi nnas min charri alwaswasi alxannas alladi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wannas bismillahi arrahmani irrahimi sadaqa allahu mawlana alazim wa ballaga rasuluhu alnabiyu almustafa alkarim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa mawlana min alshahidin اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله حجة لنا يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات إنك مجيب الدعوات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان aw wuquufin bi gayri waqfin aw idgaamin bi gayri mudgamin aw idhaarin bi gayri bayaan faktubuhu minna ala altamaami walkamaali walmuhaddabi min kulli alalhaam warzuqna fadla man qara'ahu muaddiyan haqqahu maa alaadaai walqalbi wallisaan warzuqna fadla man qara'ahu muaddiyan haqqahu maa alaadaai walqalbi wallisaan وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان وهب له به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا وأمنه من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكر وأكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وثبت أقدامه على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان اللهم أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ومصباحنا في الظلمة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واجعل إلى رحمتك إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك زخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا wa mashaayixina radiyallahu anhum ajmain allahuma ballig sawaab ma qara'naahu wa nuura ma talawnaahu li ruuxi sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam wa li arwaaxi aabaa'ina wa ummahaatina wa azwaajina wa zurriyaatina wa asxaabina ridwaanullahi taala alayhim ajmain wa li arwaaxi aabaa'ina wa ummahaatina wa mashaayixina wali arwaax jamiic almuslimin walmuslimat al axyaai minhum wal amwaat ajmaciina caama wa ilaa jamiici asxaabi alxayraati min almuminiin walmuminaat allahuma ansur man nasara addiin waxzul man xazala almuslimin allahuma ansur man nasara addiin alislaam waxzul man xazala almuslimin amiin ya rabbal aalamiin اللهم لا تدعنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إن القوم الذي أنت بهم قد استعزوا بعز أنفسهم في مكرهم وقديعتهم وعنادهم وجمعهم allahuma jacal tadmirahum fi tadbirihim wa halaakahum fi xarakatihim waxtiyaalahum wa qaddir lahum charra min cibadik wa ajal ala lisaani xalqi alaakihim allahuma unzukhum ka ajazu naxlin muqair allahuma ajil halaakahum allahuma amtir alayhim xijaatan min samaa wajcal bi aska yatihim wa hum naimun aw yatihim duxan wa hum yalcabuun اللهم لا تؤمنهم مكرك اللهم لا تؤمنهم مكرك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد اللهم دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق وخذهم من حيث لا يحتسبون وألق بينهم العداة والبغضاء wa alqi baynahum al adaawata wal bagdaa wa ashghiluhum bi shaghili anfusihim anna wa ashghiluhum bi shaghili anfusihim anhu wa ashghiluhum bi shaghili anfusihim anhum allahumma sallit alayhim kalban min kilaabika wa khuzhum wa khuzhum bi saabiqi laa'iqi wal balaa'i l-mutalaahiq allahumma ij'al kaydahum fi tadliilin wa arsal alayhim tayran abaabiil tarmiihim bi hijaatin min sijjiil فجعلهم كعصف مأكول اللهم اجعل المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجري المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين صاب سهم الله في أعداء الله صاب سهم الله في أعداء الله صاب سهم الله في أعداء الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين fa qutia daabiru qawmi alladina zalamu alhamdulilahi rabbil alamin allahuma ya dal arshi almajid inni asaluka biazzatika wa quwwatika alqahira ala kulli shayin an takfiyana shar alxaasidin wa kayda alkaidin wa jami xalqik allahuma ya man yaxulu bayna almari wa qalbi xul bayni wa bayna man aadana xul bayni wa baynahu man aadahu xul bayni wa baynahu man aadahu wa man araadahu bisuin faruddahu alayh wa man araadahu bi suuin faruddahu alayh wa man kaadahu fakkidhu bi sirri qawlika innahum yakiiduuna kayda wa akiidu kayda wa xasbuna allahu wa ni'mal wakiil wala hawla wala quwwata illa billahi al-aziim wa idh yamkuru bika alladhiina kafaruu liyuthbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru allah wallahu xayrul maakiriin wa araaduu bihi kaydan fa ja'alnaahum al-akhsariin wa araaduu bihi kaydan fa ja'alnaahum al-akhsariin in yansurukum allahu fala ghaliba lakum wa ma nasru illa min indillah wa ma nasru illa min indillah ida jaa nasrullahi walfath wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba qul a'uudu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq wa min sharri gaasidin idaa waqab wa min sharri naffaasaati fil uqad wa min sharri haasidin idaa hasad qul a'uudu bi rabbin naas malikin naas ilahi nnas min charri waswasi alxannas alladi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wannas ya rabbi amatana bi duaik wa waadtana bi ijabatik wa qad daawna kama amartana fastajib kama waadtana innaka la tuxlifu almiad allahuma salli ala sayidina muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور أبصار وضيائها وقوت الأرواح وشرابها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 wa salaamun fi dunya wa salaamun fi l-aaxira wa salaamun baynana walhamdulillahi rabbil aalamiin fatiha maa salaati fatiha wala salaatu waay man ñaan yàlla nangu ñaan gi yàlla jotal Ousmane Sonko xaar ko ci zahir ak ci baatin képp ku nar a nasaxal yàlla nasaxal say mbir ci zahir ak ci baatin yàlla def ko mu doon président 2024 ci kàttanu yàlla bi xurmati qul allahuma malika al mulki tu'til mulka man tashaahu Ousmane Sonko wa tanzi'ul mulka mimman tashaahu soxna Batoor wa tu'izzu man tashaahu Ousmane Sonko wa tuzillu man tashaahu soxna Batoor biyadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir Ousmane Sonko bi xormati sayyidina Muhammad amiin yàlla yàlla nangu jërëjëf